il faut nga sedd suba loolu bi ñu paree tamit nit ñi essayé nañ ci côté yu ne et chambre de commerce bi ngay dégg xoolal exemple loo xam ne nii sëriñ boobu moo tax 2014 ba léegi mënuñu def ñu def élection parce que xam nañ ne election chambre consulaire fu ñu ko defee ci Sénégal mooy chambre nationale ma gagné ko léegi ñu reporté ko de 2014 ba léegi privé xam nga lu ñu privé mais des jeunes entrepreneurs yoo xam ne nii tey ñoo waroon toog ci chambre de di siéger parce que tey secteur privé soo wootee normalement ci suñ nomenclature l' état lu muy def dafa war a la chambre de commerce chambre de commerce dafa représenter l' ensemble des secteurs privés bi mi ngi fii ñëpp ci biir te c' est électif léegi 2014 bi ma nekkee ne gis ne ñu jox ma union des chambres de commerce ma bëgg régler chambre de commerce xam ne Dakar mooy problématique ma ñëw inscrire Dakar pour bëgg ko régler ci lañ ko reporté ba léegi nangu wuñ ko def xam nga loolu loolu problème nga ñëwati temps yi yaa ngi dégg ñu jaxase union bi ne dañ koy jaxase naan dañuy créer ay ñaari union xam nga loo xam ne nii décret moo koy réglé décret moo koy réglé ci loolu sax laay laay xaw a xeeb un peu autorité yi nan lañ am loo xam ne ni c'est institutionnel mi ngi mel ni ñaari maire nga nekk ci dëkk Kaolack ay nit dem fee rek nañ ñun euh, dàq nañ sëriñ ñu ñooy maire bi léegi dafa am kuy ko def contrôle de la légalité mhm. warta mën a nekk yaa ngi koy dégg ñu di ko wax mais munta nekk la chambre de commerce les acteurs duñ organiser élection ministère mooy organiser élection mooy installer mooy transférer c'est-à-dire loolu dama la ko wax loolu lépp dañ ko def pour xeex ma aujourd'hui tamit Kaolack ba ma fa nekkee di liggéey maa nga nekk di liggéey bëgg a organiser bëgg a defar mais ñu jël employé yi dóor sama kaw jël commerçant yi dóor sama kaw jël lépp mais comme ni ma la wax ay jësig la yu bëgg yu bëgg a ñëw xaw ma dañ may lekk xaw ma dañ may xusi mais on a résisté dégg nga da ngay dégg coow mais après du too déggati parce que dañuy xam ne liñ nekk du dëgg du yoon du nekk lu dëgg du yoon parce que du dañ lay li waa ji di wax na bu dee bu ku ne ëw nga daw ku ne ëw nga daw ci daw rek ngay dëkk waaw mais nag ñun am nañ beneen beneen mat koo xam ne nii même lu coow lu bari bari buñ demee ba ñuy seqal ñu ne jàmmoo dañuy nangu jàmmoo baale continuer et je pense que ci yoon woowu lañ nekk problème yi nga déggoon kaw lax yëpp yëpp macha allah mais j'attends encore mën naa am fii léegi ñu ubbiwaat beneen problème hmm. loolu il faut prévoir sama nit ñu ngi koy pare ah. xam nga lu tax ñu di ko pare su fekkoon politique moo ñu ñor moo ñu ñor un homme d'affaires buy def politique li ëpp ci moom day dem parti au pouvoir bu demee au parti au pouvoir business am day gën a yokk nangam day gën a yokk mais tu n'es pas garanti ci va te dire que demee beneen état di ñëw mu daanu te doomu aadama tamit. est que yàq président réeroo ngeen tamit. non xam nga. Hmm? sequma lu may réeroo ak moom. Ah. sequma man su fekkoon tey réeroo mooy la man mi dem jàkkaarloog moom Kaolack mu dem a xool ma di ko xool ma ne ko candidat la présidentielle te dama bëgg a gagner sa candidat loolu ku ko mas a def si senegal ah c'est-à-dire am courage boobu moo tax ma mën ko ko wax. te bokkuloo ci candidat yi naan Macky Sall moo leen gemb. moo man Macky Sall mënu maa gemb parce que déjà dama lay jox exemple li gën a jafe moom laa am mooy bi ma nekkee maire euh, Kaolack mais ñu bari maire yu bari maire capitale bañ gañee maire yi dañoo dem transimer dañoo dem transimer mais man est-ce que dégg nga ma ci bul yaakaar ne. pression bu ne def nañ ko ci man pression mooy ñaar mooy carotte et bâton pour ne la nga transimer mais li tax defuma ko li tax defut ko wut siwuma ci woon xaalis et en même temps waxuma woon loolu kawlax yi te ñun alxuraan dafa am loo xam ne nii bu nekkee sa base ci yow alxuraan yàlla dafa wax ne yaa ayyuhal lazina amanu lima taquluuna maa laa taf'aluuna kabura maqtan inda llaahi an taqulu maa laa ta'lamuuna foofu yàlla daf ci insister def na lu tax ngay wax loolu def loolu dafa garaaw ci yàlla ngay wax loolu def te saa loolu ñun dañ ko gëm def ko moom moo tax tout le temps ah way boo àndut ak état duñ defar Kaolack may leen non est ce que ñi fi nekkoon da ngeen leen a defar yéen amoon ngeen maire yu fi nekkoon. yu fi nekkoon bokk ci état te defaru leen leen dara est ce que nekku bëgg ma nax rek. bii moom du nax bukki la mooy nax ma mhm. ba ma ne ñëw naa dugg naa ci yoon rek ñu ne ma allez au voir ñu ne waa sëñ bi sëriñ boobu amul beneen euh, crédibilité mhm. tas sama kër loolu dama ko préparé baax looloo tax ñun ñu dem ci àndu nawle et on va rester àndu voilà. Mhm. tey est-ce que euh, natt nga lan mooy euh, rôle un président de la république tey jii rawatina ci moment bi nga xamante ne Sénégal fi mu toll tout est urgence nga ñëw fàqee ci langue gi ne kaay leen ma jiite leen. xam nga un président de la république soo ko bëggee jël teg ko ci sa bopp rek danga naan dafa diis mais un président de la république ay ay ay ay ay kii la ay ay banqaas la ay banqaas. bànqaas mooy leen fexeel ba nga xam ne nii li def na ko teg ci yoon te am ay compétence ñun dans notre euh, ci suñu kii ki sunu ci sunu programme li ñu def mooy dañuy renforce institution yi parce que institution ñooy jàppale président de la république institution mooy lu bëri assemblée nationale assemblée da ngay fexe ba mu nekk duutu assemblée parti parce que loolu tax ñun bëgguñ parti li ñu bëgg mooy bu ñu amoon élection candidat libre yi dañ koy encourager c'est-à-dire en même temps def ko départemental mooy ku kuñ élire ci benn gox nga xam ne yow département ba nga fa nekkee te ba dañu laa élire da ngay am 50 pour cent majorité du raw gàddu dañ koy proposer xam nga un président de la République mën na ne day proposer moom loolu ay loi yu ñuy changé la assemblée koy changé wala da nga koy yóbbu référendum mais lañ mën wax vision boobu moom loolu day am mooy député day am day am indépendance day am day am day am autonomie te tamit day dañ koy teg dans les bonnes conditions pas pour muy contre état mais pour mu jàppale état donc yow doo nekk président boo xam ne yaay defal liste say député yu non jamais jamais non du ko def parce que ndegam def naa ndem naa ba nekk président te jaaruma ci loolu pourquoi may jéem a def leneen kenn ku ne naka ale sa battre pour am confiance fa mu nekk parce que jël benn député fexe ko dugal sa liste ka campagnal ko bañ fal ko ñam nekkal xamuñu ko amul sens bu fekkee da nga bëgg a liggéey li am sens moom mooy yow nga bàyyi leen ñoom ñu dem am confiance pour que demee ñu mën a taxaw défendre seen défendre Euh, seeni bëgg-bëgg devant l'Assemblée avec gouvernement ñun loolu lañ ko def justice bi tamit ñun suñ programme dafa leer dañ ne dañuy supprimer ministre de la justice suñ ko supprimer ñu créer haute autorité boo xam ne nii moom mooy yor justice bi haute autorité boobu président di ci bokk day nekk kenn koo xam day homologué rek c'est-à-dire day approuvé li ñu def mais dañuy réunir biir xam loolu nag euh, damay joxe vision bi rek mais borom xam bu loolu amee day am ay ay waxtaan yoo xam ne nii mooy am mais fexe daal ba xam ne loxo président dana génn ci justice bi dana génn ci procureur parce que loolu moo gën sax si président président bu loxoom nekk foofu sa doom mën naa dem def ay tuuxi doona ne ah sama sa sama papa fi nekk imagine ñun gis nañ dara Corée du Sud un président daal en exercice son fils a fait quelque chose mais il est menotté au tribunal c'est ça loolu mooy démocratie demal nga xool Corée actuellement le président de la république biñ élire jigéen la mais biñ xoolee ne dafa duggoon ci ay affaire assemblée moo dem dindi ko ñu yóbbu ko juge ko mi ngi prison dara mais loolu boo ko defee est-ce que amul risque ñu assister à lu ñu mën a wax euh, le gouvernement des juges non non non du hmm. gouvernement des juges waaw non du gouvernement des juges ce que j'ai dit c'est clair soo amee haute autorité day am représentant day am collège électoral boo xam li juges yi la ak les juges et les auxiliaires de juge de de justice xam nga da ngay xam ne greffier magistrat notaire avocat yooyu yëpp ci lañ et en même temps dañ ciy boole les élus locaux boole ci les parlementaire ba nga xam ne nii danañ xam ne du juge yi rek ñooy toog di élire ñi nga xam ne ñoo fay nekk parce que boo demee États-Unis noonu lañ mas a dem le procureur il est élu et il va se rendre compte que il est pour le peuple mais pas pour une personne et il sait que bu fekkee liñ ko dénk defu ko demee dañ koy dindi. Mhm. mais kon tey euh, jàngat nga Sénégal ni mu tëddee ba tey nga bëgg ne damay ñëw dagaan seen baat pour soppal ñi dëkk bi kon mbir yi fan la sooxee ci réew mi. mbir yi fi mu sooxee mooy politique bu bari bi ak manque de compétence il faut comprendre na. ya allahu subhanahu dafa wax ne walla tuttu sufa amwalakum ne confiez pas vos biens à des personnes incompétentes compétence daf cee war daf cee war a feeñ Sénégal ñàkkul dara am na lépp lépp la am mais su compétence amul te politique tamit ñu yeew la ci politique doo dem man jéem nañ maa yeew ci politique kaw la mais damaa bañ. ci naka. non li ma bañ a mooy damaa fexe ba nga xam ne xar ma jox la anecdote xam nga man bi may dem élection dama ne ànd nawle ànd liggéey bi ma paree am na ñoo xam ne nii quatre-vingt pour cent ci nga xam ne ñoo àndal musuñu def politique xamuñ luy politique lan moo leen ñor nan lañ développé seen dëkk. mais ci biir ñi ma àndal am na ci 4 cinq yoo xam ne dañoo mere seen parti mooy mere ci parti yenn yi ñëw fekk si ma ne ma nañ ànd ma dugal leen sama liste. mais tey soo demee sama conseil yi ñooñu ñoo am problème ak man mais même ñi nga xam ne ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar wala ñu nekk Pastef amuñ problème ak man parce que le fait que aujourd'hui ñun dañuy teg affaire bi ci taabal bi discuter. su fekkee da ngay nangu en tant que maire wala en tant dara bu fekkee yow ñi nga àndal loolu loolu loolu loolu baaxul mais danañ la ko justifier nga revoir sa copie looloo tax sax ñun suñ débat yëpp bu la neexee dañ ko def direct à la télévision peuple bi seetaan ko ba nga xam ne nii boo fa toogee di wax dara loo xam ne sax tegul ci yoon bu amee bu pare yaay am sa gàcce kon je pense que Sénégal réew la ci réew yi partout dans le monde France ñëpp ñu ngi doxal seen réew. li réussir faneen war na réussir Sénégal. bien bien sûr bien lu tax lan mooy différence bi nit nit la rek nga ñuul nga weex wala nga def lëm loolu wax na ko. ah la faddala li arabin ala ajamin illa bi taqwa mooy arab euh, keneen ko dul arab amul gënale lu dul ragal ragal yàlla mooy li nga xam ne nii mooy acte yi ngay def ragal yàlla du julli ak woor rek yàlla wax na ko laysa birru an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal mooy ngay julli julli woor du ragal yàlla ragal yàlla mooy nga li ngay def nga sédd ci yàlla xam ne demee ce peuple dana la ci jugé xam ne demee tamit yàlla dana la ci jugé loolu au moins dafa am importance chaque leader dafa war a xam loolu Mhm. léegi le temps que suñu réalisation bi di ñu kaleel euh, benn élément ci euh, euh, élément yi ñu war a jàllale ci sa sa programme ñu waxtaan si processus électoral bi monsieur Serigne Mboup jamono ji ñu ngi toog fii di waxtaan waaye dara wóoruñu ni le 25 février élection dina am mhm. parce que manœuvre yi commencé na ci assemblée nationale convoqué nañu la conférence des présidents pour examiner li nga xam ne mooy requête bu parti démocratique sénégalais def pour ñu xool assemblée ñu xool conseil constitutionnel est-ce que amul ay juges corrompus te loolu remettre même en cause euh, lii di processus électoral bi euh, processus électoral bi globalement naka nga koy apprécier te est-ce que jàpp nga ni élection présidentielle dina am le 25 février malgré tout. mais est que ñaar wala ñett wala benn groupe bu jàllul rek bu jàllul yaakaar nga ne tey Sénégal dana dégg foo xam ne nii assemblée du uti gi naan juge bi corrompre na ko yu fi gën a garaaw am fi yi ci nekk teg seen bët ah? taxul mu yëngal état bi ah man de góoma loolu te loo xam ne su fi am ba ñu amee indépendance léegi mosuma gis élection présidentielle yu dépassé bon kenn mënta wax ne mënta nekk nag mais ñun dañuy liggéey rek ñun dugguñu sax ci réunion yooyu sax ñun dugguñu ci voilà ñun gis nga 20 juillet bi ñu recalé dañoo dem jàngat lu tax ñu recalé ñu ñu jàngat ko jàng ci génn ci waaye déggu leen ni ñuy kaas déggu leen ñu ci média déggu leen ñu. collectif des candidats recalés seen combat yow partagé woo ko. bon ndegam nit ku ne bu nekkee ci combat mënoo ko wax ne ko combat bi arrêté ko maa ngi leen di ñaanal ñu am chance chance buñ ko amee bu yàlla defee ñu mën a bokk-bokk mais je ne suis pas d' accord ci repousser les élections wala élection warta am loolu c' est parce que wax naa la ko fi léegi élection chambre de commerce bi ñu ko repoussé ba léegi lu metti la te day rey économie c' est à tey bu ñu repoussé élection yi benn jour sax instabilité la ñuy teg parce que un président boo xam dañ ko élire pour cinq ans mu jeexal suñ ne dañ koy repoussé donc loolu day nekk président bu grave boo xam ne nii ku ku repousser benn fan ñaari fan mën nga repousser at mën nga repousser ñeenti at mën nga sax ne euh, indéfini gis nañ ko ci ay réew yoo xam ne nii. mais quand même conditions yi est-ce que mën nañu dem objectivement à des élections mais du man ak yow koy di y a des a des y a des institutions euh, y a la dette ñooñu c'est sûr que euh, le moment venu suñ xoolee ne. élection dana am dana am. mais est-ce que tey jii euh, la politique politicienne euh, gangréné newul tey jii suñu institution yooyu ba nga xamante ne tey jii ñu ne institution yi wax nañu yoon nit ñi dañ ci dute fi mu nekk nii moom moo ñu dal tey fi ñu toll nii ci wàllu élection yi nga xamante ne ñu ngi njortees ne ndax dina am ndax euh, de mbir yoo xamante ne ay wàllu politique dafa cee rax lool te fës ci lool moo dal tey li xew ci assemblée ba ñu yóbbu ko procédure d'urgence. mais tey est-ce que du léegi ngeen ko war a commencer saa fonte ak opposition bi yéen yëpp ngeen doon benn dànk pour bañ li nga xamante ne tey jii. ñu koy assister mais opposition yëpp bu ñu doonee benn dànk il que état bi moom moo war a toog gis ne lii équilibré xool ne lii mu dindi ko mais ànd ak lan lañ mën a def. mais soo amee xalaat bi d'ores et rek loolu moom mooy. wane ne da ngay jàpp ne état jàkkaarloog moom fi mu nekk nii moom mooy wane ne munoo dara si moom état est plus fort est-ce que loolu tey jii dina leen yombal fi ngeen bëgg a jëm man je suis républicain di fait que weer mën nañ fi dindi li fi nekk jarul xeex jarul mais lan mooy républicain pour yow être républicain être mooy gëm république mooy tey président la république mooy président mooy président institution yi mébr buñ juumee juum nañ kenn waxul ne duñ juum waaye di fait que ñoom am nañ mandat te mandat bi peuple bi moo ko yor peuple bi dans trente jours carte boobu mën na ko fee jëlee mais nañ dem ci foofu man na loolu mooy sama gis-gis. mais ay gargal yi ñu teg ñu ne élection yooyu mun nañ ko gàntal. foofu mooy wax ji xam nga dem élection ngeen bëgg. waaw mais bu fekkee ne ñi ngi teg ay galgal kañ ay ndëgg sërëx te àggaguñ fa. waaw léegi man d'accord naa ñu waxtaan ci ndëgg sërëx yi. Mhm. waaw tamit buñ ko repoussé ndëgg sërëx yooyu mi ngi fi nañ génne ndëgg sërëx yi ñu waxtaanee ko ba ndëgg koy waxtaanee ak yan kuréel la koy waxtaanee. mais li ma gis daal moom mooy man li ma gis sincèrement le Sénégal chaque élection dañuy wax ne ndëgg sërëx la élection yi dañ koy sàcc. dañ koy def nii mais man goo ma ko. góobu ne mën nañu sàcc élection Sénégal dama lay wax lu leer góobu ma ko processus bi mën nañ éliminer candidat mën nañ boole ko nit ko war a wote ci kartam jaxase yi affaire candidat bu war a jaar la ñu recalé ko mais jour élection l' administration ne contrôle pas les élections bureau de vote bu ne mooy contrôler élection. te bureau de vote maximum nga fekk fa benn bureau de vote nga fekk fa quatre cent personnes xanaa koy jaxase mënoo fekk quinze mille bureau de vote boo jaxase woon mille yi sax du am impact kon man je pense que man daal gisuma ko man daal Abdou Diouf nee nañu woon Abdou Diouf woy mënul bàyyi Abdoulaye Wade mu jëlee ah kenn mënu ko fi jëlee ah, waaw ñu ne carte du ko fi jëlee bon Sénégal nag ñoo toll ci foo xam ne nii li ma waaj doon li ma benn xam Sénégal dañuy dégg gëm gis weddi